ci nguur bi melal alquran si ay melokaan wóor nañ bokk na seet suñ borom nañu alquran de moom ak xuppe waaye ak waare la waaye ak saafara waaye ak jub la moom alquran suñ borom si aaya ne yéen nit ñi dikkal ak loo xam ne ak day waare moo mu bàyyi ko suñ waaye ak saafara ba su gaawul loo xam ne dima fi sudur waaye ak jub la wa hudan wa rahmatan lil muminin mu ne alquran ji de waar la bu bàyyi ko seen borom waaye saafara la boo xam ne day saafara farlu feebaroon nga xam ne gëm naa am lëkkaloo ak seen borom alquran bu ñëwee saafara farlu waaye alquran ji de jub la doo jub ni ñu doo teg sa boo xam ne day sellal xol waaye ak njub la boo xam ne euh, suñ borom wa taala da suñ jëm ku ko neex si ay jaam duñu wa kadalika awxayna ilayka ruuxan min amrina noone lañu yónnee si yow ak ruux gi nga xam ne daa bàyyi ko si ñun mu jël alquran bi dégg fa ruux mu ne yow Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avant alquran bi wàcc yow nekkoon ko xam waaye nekkoon ku mën a jiite ku mën a bind waaye téere ñu jiitu woon xam na si woon xam na si woon dara nga xam ne isra yoo jiitu woon yoon ki yoo jiitu woon ñëpp xam na seen jaar jaar waaye alquran bi buñ ko waxee si yow lay so loolu solo lay si yow moo tax ñu ko maa gunge tamit ni man kitaab wala iman leen gëm sax ni ko war a defee xamu ko woon walakin jaalnaahu nuuran nahdi bihi man nashaau min ibaadinaa mu ne alquran bi moo nekk leer boo xamee na si gindi samay jaam ñi ma soog samay jaam laa si gindi yal si ñu ngi si alquran suñu borom subhanahu wa waxaan ne yàlla moo wàccee benn jaaraat di wax kon alquran amul dara lu ko féete kaw si ak wax ju rafet boo see si alquran lay taxaw moo tax mu ne yàlla moo wàccee gën jaaram bi di wax mu doon ab téere boo xam ne bu bëri ay gunge la nga xam ne dañuy nekk aaya bi fii di wax beneen aaya bu gën koo leeral waaye tamit ab masaal nga xam ne lu wax wax si ñaar boo dee góor wax jigéen boo dee mag wax ndaw lu ma wax si ñaar wax sa ak waaye tamit mu nekk loo xam ne day wax ñoo ko doon jàng waaye day nooyal xol ñi nga xamante ni gëm yàlla waaye jëfaleen si njiitum suñu borom subhanahu wa taala mu ne loolu de mooy wëgg suñu borom subhanahu wa taala di si gindi ku ko neex teg ko si loo ak moom suñu borom subhanahu wa taala si ñeeru alquran de ne alquran day gëm ni day gindi nit ki teg ko si yoon bu gën a inna haada alquran yahdi lillati hiya aqwam mu ne alquran bi ne day jëmee ci junne ko junne ko teg si yoon bu gën a jub moom alquran bi ngi ni si yoon bu gën a jub la koy teg wa yubashiru lmuminina alladina yamaluuna salihat ba pare ñu gën a alquran day déggal ñi nga xamante ne ñoo gëm yàlla te jëf-jëf yu baax lu leen di bëgg mooy anna lahum ajran kabira dañuy am fay bu mag suñu borom subhanahu wa taala waaye ñi nga xamante ne gëmu woon yàlla nekk lu koy alquran dundal alquran suñu borom subhanahu wa taala bi nga ñoom dañuy jëkk góor jëkk mooy mbugal bi nga xamante ne mbugal bu tara tara la mbokk yi suñu borom subhanahu wa taala bu waxee fay bu mag fay bu mag la doon ndax moom dafa mag ba nga xamante ne bu nee lii dafa mag rek loolu mag la doon waaye bu nee lii dafa métti lu métti la doon alaana alima mbugal bu tara tara nee na mooy xaar ñi nga xamante ne dañoo bumboo yoon alquran dañ ko topp suñu borom subhanahu wa taala mooy ne dafa tedd mu alquran waaye waaye dafa tedd waaye yiwum boobu nit ñi day law day sëriñ sax nit ñi moo moo subhanahu wa taala la qasamun law taalamun azim innahu la qur'anun karim mu ne boo leen xamal alquran su ko nee maa ngi gis ne alquran bu mag la si borom ko xamul boo leen ko xamul la alquran mag la waaye rawatina bu leen xamee ñi nga xam ne alquran bu mag la ndax li mu def si doomu aadama dafa rëy si borom subhanahu wa taala melal alquran ne dafa mag waaye amul dara lu ko gën mën a jeexal si xol ak ak bakkan mu ne qul Euh, mu ne alquran yooyu sax suñ ko wàccee woon si tool daal ñu ngi sax mu tas ndax fii mu ne law anzalna hada alquran ala jabalin la ra'aytahu xaasi'an mutasaddi'an min xasyatillah mu ne alquran ji nga xam ne moo gën a mën a jeexal si xol doomu aadama buñ ko wàccee mu tiit ba tas ndax lan min xasyatillah ndax si koo xam ne nit la nga xam mu wàcc si moom ñu koy jàng si moom mu def si benn benn effet si xolam loolu du ji du ji loolu moo si borom jeexale aay ba tilka al amsaalu nadribuha linnaas la'allahum yatafakkaruun mu ne misaal loolu dañ koo wàccee si nit ñi waaye ñu naan ngir ñu mën a fàttaliku di si xalaat ñooñu saxiihu Buxaari si xadiis Usmaan ibn Affaan yàlla ko yàlla yërëm tunawajani ya rabbi nema yeye sallallahu alaihi wasallam nema kwesi ya jamii mwe kuja na Qur'an na video yake kwa kwa kwesi nyinyi kwa kwa kwesi nyinyi na sallallahu alaihi wasallam ne ko ko ko ko aan yo kwesi nyinyi ko ni ko na tele ne ko ko yo ko mo kwesi nyinyi ko am alquran ak bu mo ak bu mo na man bu ko defe diko jangale ko yo ñi sahihayn si hadith Aïcha radiyallahu anha mu ne yow sama salaam ñu ñi nga xamante ne dañoo mun alquran di ko jàng jàng jàngi bu rafet ñooñu yawmal qiyaama dañuy ànd ak malaaka yi nga xamante ne malaaka yi wàccee loolu la alquran daan la yawmal qiyaama yan solo boole mu ne ñi nga xamante ne jàng alquran nag di soñu nga xam ne mënuñ ko mënuñ koo sax lii bu baax waaye ñoo sonn di si jàng di jéem ñoom nag dañuy am ñaari ñaari fay fay nag fay jàng alquran boobu ak fay coono boobu ñoom sëñ yi ba tey sëñ Aïssa Abi Moussa al Ashari yàlla ko yàlla boobu nee na misaal jullit yi nga xamante ne jàng alquran ak jullit boo xam ne du jàng alquran boo ko doon misaal nee na dafa mel ni benn xeetu meññeent la boo xam ne day am xet xet bu neex waaye day am càppate bu càpp bu neex mooy koo xam ne yaa alquran loolu lay mel waaye jullit boo xam ne yaa alquran ne daal dañ am tàndarma tàndarma gis nga boo amul xet bu neex xet bu doo xew dara doo xew waaye boo ko lekkee day am càpp nee na misaal jullit bu jàng alquran ak jullit bu dul jàng alquran loolu si misaal ñëw si xadis ak mun sedang muslim siapa ali sayyid yang mau yang berdoa ia itu sama seperti ini dalam Al-Quran Itu yang dalam Al-Quran Yang juga di dalam Al-Quran Dalam Al-Quran Dari TV yang matiam Diram Ibrahimnya Dan Al-Quran Mereka itu berbahaya Dia ini ke Dia ini ke Raja Raja Dia ini ke Sufol Dia ini ke Abna Dia ini ke Ibrahim Dia ini bi nga jëkkee yow boo demee yow ak yàlla mën nga jël ràmm si sa kanam suñu borom subhanahu wa taala yàlla si yàlla boole. ñu ngi sëy rek ba léegi sëy muslim si xadisu Uqbat bin Amir yàlla ko yàlla borom nee na yéen sama sëb yàlla ndax doomu jëm benn bés dem si jàkka ji moo xam ne koy jël ñaari naaya nee na boo xëyee dem si jàkka ji dem si dem si jàkka ji jàng ko ñaari aaya moo ëpp fuuf ñu jox la ñaari bidéew yu rëy yu suuf ndax moom bidéew moo ko gën a cher waaye suñu jàng ko war na tey maanaam ñaari campagne si rafet a rafet nga jàng si jàngee ñaari aaya dem moo gën loolu fuuf nga jàng fi ñetti aaya dem moo gën loolu fuuf nga jàng fi ñeenti aaya dem moo gën ñeenti campagne si ñu jox ñoom sëñ bi mu si ba tey si hadis Abu Hurayra radiyallahu anhu mu jëlee seen chance la ne bu dajaloo aw nit bu ñu dajaloo ci benn bërëb si bërëb wala si jàkkee si borom subhanahu wa taala wala si paas yi nga xamante ni ñu fàttali ko yàlla muy def lan ñu jàng alquran waaye di ko si tëdd say biir lu mu ne suñu borom dina wàccee si ñoom ak dal ñoom ñuy def loolu du ñu am dara lu ñu ci jamono jooju seen xel lay dal fu problème am dégg ñoom ñoom ñoom ñu ngi ndax seen borom subhanahu wa taala moo di sàmm waaye wala seen mu raxma yërmaane yàlla leen mu muur dawla loolu waaye nag wa xamat muur malaayika maa malaayika leen yiir ak seen laam kooku ñu ci koo xam ne yow bi nga toogee si bërëb di fàttali si borom subhanahu wa taala ñëpp nit yi moo moo nekkal yow yàlla dana si yow dal ba noppi yàlla wàcce si yow yërmaane si yow bu noonu bi malaaka yow ñiir la loo tiit mbokk yi bu koor bi jëlee dañ daan alquran yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu koor bi jëlee lépp noonu da koy bàyyi di jàng alquran ñu si hadis Abi Muusaa al-Ash'ari radiyallahu anhu yéen sama sax di wax ne na leen fàqoo ak alquran di ko jàng nit ko dafa am nit dafa war a am nit si alquran dafa julli naa moo am mbir bu sàrfaan ni julli woo toog bis ñëpp jaaxal ko loolu du yoon nit dafay am mbir bu sàrfaan la ko maanaam nit ki bu xëyee war naa am loo xam ne war a jàng xam loo def lu mu def yow sama sam nee na ngeen tàqoo alquran di ko jàng alquran bi mu gën a gaaw rek si jigéen boo xam ne li ko nga xam ne li ko rajal la loolu bàyyi ko loolu noonu mu gaaw rek nee na weesu Fakee na alxuraan moo gën a gaaw wax dëgg yonent bi aleyhi salaam tamit bi ñu wax yiw yi nga xamante ne nekk na si jàng bi nga xam ne doo aar ne ko jàng alxuraan yiw bi ñuy fekk suñu borom subhaanahu wa taala ñu wax ne inna alladina yatluuna kitaaba allah wa aqaamu salaa wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaaniya yarjuna tijaaratan lan tabuur ñi nga xamante ni jàng ci yàlla bi waaye di jàng di taxawal julli waaye di joxe asaka wala di saraxe si yàlla moom si borom subhanahu wa taala moom la ñuy wërsëgal moo xam dañ koy si sirr si secret wala dañ koy tësal si borom subhanahu wa taala nee na am nañ commerce boo xam ne commerce bu bees la kon commerce bu bees ak loolu la naxal yoo fee mu woon su woonee des fay seen i yoon bu sëkk waaye nag dañuy doon wala ñu ngi suñu fan ba pare ba naan doon na su suñu gën yi loolu soo sa xalaat alquran benn xarab lay daal yàlla ko fu ko fu ko suñu ko di ma ko ñu saw sa borom wala si bu ñu fan si ko ñaar la ko sama gën ma doon ma inna mu ba fu mu sa ko ndax mu si ko sama taala ab jëkkalaakoon nag waaye ab santaakoon la ñoo si xam waa saxee min xarit ak Osman radiyallahu anhu qaal nee na gën si yéen mooy ku jaar alquran bay di ko di ko jàngale waaye ñu ne si suuf fi ñu si di sa euh, albaani wéru ko si xadiis Abdullah bin Mas'ud radiyallahu anhu qaal nee na képp ki nga xamante ne jàng na ak xaaj ci téere suñu borom subhanahu wa taala mu ne kooku day am xase xaraf boobu fukki tiyaaba mu ne waxuma ne alif laam miim mooy xarf walakin aliful xarf walaamul xarf wa miimul xarf alif laam miim boobu rek nga ko am trente tiyaaba loolu alama ko taal si may tiyaaba alif laam miim nga ko am trente tiyaaba lan moo gën a gaaw mu ne képp ku jàng benn xaraf si téere yàlla suñu borom subhanahu wa taala yàlla benn xaraf bu ne fukki tiyaaba lay si ko loolu ban téere bu mën a maye ban jëf ngay jëf bu gën a gaawee noonu si may tiyaaba encore dama la moo tax saaba yi nga xamoon koor bu ñu am lépp la ñuy bàyyi am na ñeenti saaba yoo xam ne bu ñu xëyal dañ daa ñaan daal bu jeex suñu Usmaan ibn Affaan ñoo xam ne bu ñu xëyal alxuraan li koy jàng moom jeex moom ñoom ñaar tiyaaba yi daal ko par bés am na dañ naan ci seen jëf mbokk yi jàng alxuraan ñaari pàcc la am benn nga koy jàng seen aayam boobu nga xam ne xamoo lu muy firi xamoo ay maanaam suñu bopp subhanahu wa taala lay fay si loolu da lay fay si loolu benn xaraf bu ne nga am fukki tiyaaba waaye benn anam bi mooy ngay jàng anam bi xam ay maanaam ba pare di seetal tamit loolu mooy loolu moo tax alxuraan wàcc seetal na alxuraan loolu moo tax alxuraan wàcc ndax loolu mooy moo lay xëpp toujours si jaamu yàlla waaye loolu mooy jëf loolu jëf jëf lu baax moo tax mu ne kitaabun anzalnaahu ilayka mubaarakun liyadabbaru aayaat suñu borom ne téere bi maa wàcc si yow Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bu loolu lu barkeel moo tax waaye nag ngir ñuy seetal aaya ñun tàggatoo aayat wala yéen a naan alba ngir borom xel yi tamit di si xalaat kon alquran la waxoon na ko wàcc mooy jàng ko di ko setantal Usmaan ibn Affan euh, ku ñu wax Abu Abdurahman Asulami nee na daan naa laaj ñi nga xamante ne daan jàng si yoonu sama sama alquran loolu ñu ko jàngee alquran ku si mel ne Usmaan ibn Affan ak ñeneen saxaaba ñoom nee na bu ñu daan jàng alquran fukki aaya daal ko moo kon ñu ngi jël fukki aaya bu ñu ko jàngee ba noppi ba mokkal ko jëfe ko lu si nekk ci ay ndigal mu jëfe ko lu si nekk ci ay tere ñu bàyyi ko doogo yàq doogo yàq yeneen fukki aaya bi suñu borom subhanahu wa taala wàccee aadama xawa si suuf بورين سيطان يقول قال اهبطوا منها جميعا بعضكم لبعض بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا يضل ولا يشقى سيقع قبل أمياني ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا شكرا لك يا رب أك خواص سبول الشيطان غاية ين أك شيطان أيمن ين أيمن ين waaye booy demee si kaw suuf yàlla joxal beneen occasion mooy lan ah dinaa wàccee si yéen ak jub jub boobu mooy jub alquran mu ne man tamit am hudaaya falaa adilla wa laa yashqa képp ku doon sama jub boobu kooku sax waaye bu jëlee waaye bu ko woon ginnaaw bañ koo jàng bañ koo sëriñal bañ koo jëfe bu man aarada an zikri suñu borom ne fa innahu ma'iishatun dankaa moom bu ko gis si at may tàmbalee dund bu naqaree bi dund wa nasuruhu yawmal qiyaamati amaa yawmal qiyaama boo dekkee ne ne dama doon dund te ñun suñu àll yàlla nekk bu dund boobaa nag nga jommi nag nga nekkoon am na njàccaar bu sol yawmal qiyaama nekk bu dund moo tax ma ne qaala rabbi lima hasartani a'maa wa qad kuntu basiira yow sama borom bu tax nga def ma doon koo xam ne damaa gumba tey dama nekkoon ku gis suñu borom ne ko كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى mu ne bi nga nekk alquran sama aay sama laay alquran dama ñëw ba bu mooy ba koo jàng ni ko alquran sa leen di xeex yow man yàlla su ko ne ah sa loolu boo la fay du aay dama ñëw nga fàtte ko wala ko ginnaaw suñu borom subhanahu wa taala ne tey jii day fàtte yow loolu yëpp yow yow man yàlla su ko fàtte la parce que daal dangay si man asama wala yu'min bi ayati rabbi wala adaabu al-aaxira asabtu aw subhanallah ngóob nga leen jéggi jéggi dayoo ñoo xam ne gëmul suñu aaya suñu borom subhanahu wa taala yi su ngóob nga leen wala tuwaan mu ngóob ko mooy gën a tax fuuf asab bu ak ak ngóob lay des maanaam mu ngóob nga leen yàlla yàlla ne bu doon ngóob ko mu ngóob ko tar tar lay ngóob waaye ñu ngóob lay sax du ngóob xam nga am na dañuy jàpp ci jëkk ñoom fukki at ñu bàyyi ñu bëri waaye yow nag yow foo ko yéexee dugub nag foofu la ay dugub wax bu jeex dafa ay dugub la woon loolu rek moom déglu alquran la wér na si borom moom ñi nga xamante ñoo déglu alquran si moom lay misaal ay misaal yu bëri nee na ñoom comme ay bàyyi ñoom comme ay bàyyi walaay kàlla am ñi nga xam ne dañu ko àndaan alquran bi ko jëlee di ko jàng si borom nee na ñoom comme ay bàyyi ndax bàyyi kenn du ko jëf moko reñu wala da na am su bo meena baye su ñu jëm ba lu ñu amani ndax ñoom ñoo sa ñu la ma ñoom do lu arabi wala ñu ñu wa fi ñu da ko ki nga xam na sa day am alquran ba ngay bamé la dañ koy nañ dañ koy nañ ba faaré wo do ñu ko nañ ba faaré wo do ba nak bu dékké yow ci yaamu suñu borom nee na wa nahshuruhum yawmal qiyaamati alaa wujuuhihim umyan wa bukman wa summan ñu xool ñetti fan yu boole suñu borom nee na bu dekkee yawmal qiyaam seen xar kanam yi dañ ci gungo waaye tëx waaye lu doo mën a wax gungo tëx lu nga xam ne ñu ngi dañu ngeen boole ci bëri li ko waral mooy àdduna na nga na nga ak alquran waaye dañ ñëw si maxwaahum jahannam seen dëkkuwaay mooy safara jahannam nga nekki moo wax gumba lu ba noppi ne sa dëkkuwaay nekk safara bokk na loolu alquran bi naan ba loolu la ñu ñu ma si sama muslim yow soo ne alquran ne benn mu doon loo xam ne day layal wala mu doon loo xam ne day lay sa kaw alquran mu tëjaat am අනුරූප කරන්න කියන මොන ආරම්භය. දැන් මෙතන කොහොමද යන්න? මුදවස්සතම ප්‍රශ්නාවතාර අභිඥාන විවාසම. වලදෙන් මුනු යේ නම් කියලා දාවම යන. දාවම යන සිබුන. සිබුන සුසුනාවත සර්ව වුණා නුසව. යම් සරම සර. වය කොහොමද නැදන් අපරාධ දෙවියන් සමසන මොස්තන. මෙනකොට මෙවනක් යම් බුදෙක්ගේ ඉතින් යම් අපරාධ සමසන බුදෙක්ගේ යොමතියා nga xam ne nee na bërëb si bàmmeelam rek day am benn jëm jone ñëw si moom ne ko la xamu ma loolu la xamal rek mu ne ko man la alquran jëm ji rafetlu ne ko man la alquran man naa lu tere woon sa yitte nit ñi bu ñaan ko yàlla bokk na yow si daal di jàmm ah bi nga nekkee sa commerce soo amee ak course bu ndaw yaa ngi leen di jëriñ jàmm man la alquran man li ma si nekkal tey nee na moom alquran ñu jël waajeeju mooy bu ma alquran yóbbu alquran nag moom ba kanam suñu borom subhanahu wa taala ñu ne ko ñu solo ko benn maanaam yoo xam ne moom maanaam lu leer nañ la ay waajeeju ñu jël leen waajeeju ñu koy bon dara jot ñu jël leen solo leen maanaam lu leer waaye tamit solo leen ak yére boo xam ne amul benn buus pour ànd yi bu ko bu ko bu ko jege xam ndax yéen boo xam ne yow boo ko solee wala maanaam boo xam ne boo ko solee leeraay bi raw leeraay bi leeraay jant bi te jant bi suñu tool yi amul kenn ku leerul nañ waaye loolu day raw leeraay jant bi moom dañuy solo waa ju xale boobu. waa ju xale boobu suñu yaay ne waaw lii moom bu ko yóbbee tey ba ma sol lii rafet bi yëpp bu ko yóbboo bu ko waral ñu ne ko sa tool bu ko yóbbee juróom kii bu ko daal mu waral xale bi moom li koy wax da koy taxaw fee mu taxaw ñu ne ko jàngal alquran muy jàng aay muy jàng rek day yëg aay muy jàng day yëg xoolal alquran ñaata aay yoo si nekk six mille six cent soixante six aay yoo si nekk aay muy jàng day yëg boo ko ci fu mu yem rek foofu la këram dem aay muy jàng rek état sa yoon mujj aay muy jàng rek foofu la këram dem mbokk yi gis nga li mooy gënee alquran